Euh, son ko dafa def une rencontre avec euh, les artistes. Mhm. Euh, mu jàpp ne programme bi nga xamante ni ñoom ñu ngi ciy liggéey. Mhm. ñi ko ñi nga xamante ni war nañoo bokk ci ñi ko véhiculer maanaam ñi nga xamante ni dinañu fexe ba sénégale yi approprié. pardon approprié wu ko. Mhm. xam nga ci waxam ji sax mu ngi koy expliquer comme quoi que PSE nga xamante ni moom lañu wax ne. moom la régime Macky Sall waxoon ne mooy programme bi nga xamante ni moo war a Sénégal à l' mhm. ñu dem sax bay fixé seen ay deux mille trente cinq di wax seen i wax donc pro pro programme projet boobu daanaka sénégalais yi boo leen laajee lan moo nekk les tenants et les aboutissants xamuñu ci dara. Mhm. mu nekk loo xamante ni entre intellectuel lañ koy waxtaanee PSE PSE PSE population yi comprendre bi mu ne nag moom pour éviter ça programme bi nga xamante ni ñu ngi koy bëgg a euh, euh, euh, ñu ngi koy tënk fi ñu toll nii bëgg nañu ñu def de sorte que sénégalais yi xam lan mooy continue bi lan mooy également cër bi nga xamante ni ñoom moom lañ leen ci jox ak rôle bi nga xamante ni war nañu ko ci jouer mm-hmm. léegi nag loolu bu dee dafa am mu ne ci ñi mu ñi mu compter bokk na ci les artistes ñooñu euh, la doon euh, dajal démb am nag ay wax yoo xamante ni euh, jib na fa te ma mhm. jàpp ne quelque part mun nañ ci def benn seetlu mhm. déjà wax na ba ci état de grace bi nga xamante ni expliqué na comme quoi que ne mm, ñoom soxlawuñu ko mhm. que li nga xamante ne ni ñi nga xamante ni ñooy opposants yi nañu génn def li nga xamante ni mooy seen opposition boo seetloo nag daanaka daalee fee c'est ce qui s'est passé. maanaam ma jàpp ne sax ñenn ñi nga xamante ne nii jàppoon nañu ne ñoom taxawaayu opposition la ñu waroon a taxawee. au départ xëy na yëngatuñu woon dañu am ci ginnaaw ñu ñu nekkoon ñoo xamante ni ñoo leen daan defal xeex boobu. ma ci Bougane nga xam ne euh, euh, euh, daanaka le 2 avril bi le président Bassirou Diomaye Faye. Des prestation de serment Bobby Ousmane Sonko di dem feulé Grand Théâtre kenn déggu ko woon danaka mu def ben sortie mais nak so suivre euh, groupe de presse am bi di nga xamné ni mom ils sont fondamentalement contre le pouvoir il a fallu que Ousmane Sonko dem au Grand Théâtre wax euh, ak patron de presse am nu mu waxé Bougane dogo guen mhm. ci laa ne <laughs> li nga xamante ne nii mooy euh, na ci intérêt sortie bobu Ousmane Sonko def pousser certains opposants à se dévoiler Et bon, euh, euh, euh, Bougane effectivement l'a don wax mm-hmm. mais bon, cette loi, comme nous ko un état de grâce bi nga xamante ni nañu comprendre quelque part sénégalais yi ça, sénégalais mais may nañ ko puisque quelque part ñi nga gis ñuy ñaxtu ils sont loin d'être représentatifs oui mais li comme on dit souvent les tonneaux vides font beaucoup de bruit. suñu dem élection en tout cas. <laughs> ñooñu moo wax ne ñoom xaaruñu euh, pouvoir bi installé wu pour ñu commencer di ko attaquer. Mm-hmm. gis nga ce qui s'est passé nga xamante ne même avant président Bassirou Diomaye di prêter serment dem na fi seeti euh, le président Macky Sall. nga xamante ne nii dañ doon waxtaan euh, ci li nga xamante ne nii noonu la passation de service bi war a demee mm-hmm. mais am une certaine presse bo xamanteni am na interprétation yum def je me rappelle ci koor gi lañu ñu ñuy def fi salon d'honneur mhm. ñu ngi est-ce que Ousmane Sonko lan la doon wuti palais pourquoi bàyyiwul Bassirou Diomaye kese mhm. mu dem palais rencontrer mhm. le président Macky Sall bu nek entre le président euh, sortant ak le président nouvellement élu donc déjà avant même que le président élu euh, euh, euh, prêter serment ñom ñi nga xamante ni dañoo sol déjà seen bobu opposant ñu doon commencé di critiquer manam mm. bu doon état de grâce dañ koy wara may li ngay xalaat ne période bi ngay xalaat ne moom la war a doon mooy bu président prêter serment ba au moins trois mois quatre mois ba six mois mm-hmm. mais gis nga ne avant même muy prêter serment mm-hmm. les attaques ont commencé donc bu nekkee ne euh, comment dire euh, euh, taxawaay boobu la ñenn ñi am te nag mu nekk loo xamante ni même bu nekkee ci ginnaaw la ñu ko assumé. Mm-hmm. mais au départ wane nañu ne pouvoir bi nii moom. ah parce que am na critique yoo xamante ni soo koy def nit ki c'est parce que yow wone nga. dès le départ sa opposition par rapport ak moom politique bi nga xam ni mu ngi koy mën parce que amoo ci benn fee boo mën a langaamu pour euh, opposer très à part que premier ministre dem na pale mm-hmm. euh, euh, loolu ban ban ban ban sens la am ci doxinu askan wi ak mm-hmm. naka lañu ñu réew mi ça n'a absolument rien mais mm-hmm. ñoom bu nekkee ne mën nañu langaamu ci détail boobu jàppal ne du ñu bàyyi leneen mu raw leen. ñu bàyyi saag romb. <laughs> ma nga te effectivement noonu la fa demee. daanaka ay eh, eh, eh, critiques yoo xamante ne nii doo gis fondement bi. Mhm. mais li tax ma ne c'est totalement compréhensible am na lu ci bëri loo xamante ne nii bër euh, bërki démb ak barkaati démb lañ koy doog gis. parce que euh, te ñu mën ko euh, comment comprendre ci attitude du presse bi. ak mhm. information yi nga xamante ne nii le ministre de la communication génnee na ko. Mhm. donc nga gis ne. benn système daanaka moo fi nekkoon. Mhm. surtout ci wàllu média yi. Mhm. Euh, bu ñu jëlee euh, exemple rek group Futur Média. nga xamante ni nii nee nañu ci quarante milliards yi nga xamante ne nii presse bi de manière générale yoreel nañu ko état bi ci wàllu euh, fisc. Mhm. ñoom ñoo gàddu quarante pour cent yi. léegi groupe boobu nga seetlu ne ci wàllu publicité. ñoo ci teg loxo daanaka ci privé yi lépp luy publicité ñom ñokoy gaddu dem nañu sax ba amna na sport yo xamanteni yoo koy dégg ci yeneen rajo yi mais ñuy liggéey fofu ñom ñoko def. ñuy liggéey fofu ñoko def. donc ñu défal leen ñu jox leen la part du lion. l'observateur du journal bi bu nekké 25 pages la jàppal né 12 pages yépp ay publicité lolu état bi di leen koy jox. gracieusement. Mhm. té groupe bobu mu koy jox di di jox ay publicité vous êtes à la presse ñëwee mon appelé. ëppale. mooy am raw gàddu gi euh, ñu ko 2022. Mhm. Mhm. mon jël li 93 millions 2023 mhm. également mon jël li 69 millions maintenant vous publicité ñëwee. bu publicité ñëwee mon moo appelé. ëppale. bu êtes à la presse ñëwee mon moo ciy mais bu bor des amis mon moo ci ok Lolo naka nga koy comprendre. que, mhm. ñu ne Macky Sall moko exprès. parce mhm. que eh, expliqué n'a fi la dernière fois xeyna na sax ñu mhm. Wade bras de fer bi nga def Macky Sall ne day comme mom au pouvoir day jël ñi nga Nous ñom la seen tour gëna nous. ci collaborer ak ñom mais li ngay comprendre quelque part moy fait daf leen si ñu jël xaalis bu bëree bëree bëree bëree bëri léegi mu leen xaalis boobu mun ngeen garder mais da ngeen di def li ma neex. Mhm. mun nga koo puisque bu nekkoon ne dañoo yem ci euh, euh, jël li nga ci publicité bi. ba pare jël li nga xamante ni moo à la presse bi. Mhm. ba pare yor bor bi gën a mais loolu est-ce que ànd na ak ngay juste et vrai.

te euh, loolu daanaka soo seetloo valable na ci li may ñi may tuddee le bandes band <laughs> annonces nga xamante ne ni leer na la ne jaay journal bi mënu la permetre ngay gérer toutes tes dépenses mm-hmm. waxuma la sax ngay am bénéfice mais say dépenses rek mënoo koo gérer mm-hmm. léegi yow euh, au lieu nga am ay difficultés mais ñu gis ne sa journal boobu kat malgré que moo lim li ngay liggéey mënu la permettre nga entretenir ko. Mhm. yaa ngi gën a progresser chaque année. Mhm. ñu nekkoon xaalis boobu fan lay jóge c'est ce qui explique ma ne euh, état de grâce mënuloon a am ci contexte boo xamante ni bande annonce yooyu ak groupe de presse yooyu ki nga xamante ni moo leen yoroon daan leen jox xaalis daan leen perfuser. Mhm. jóge na fi mu leer la leen ne xaalis ba daan ñëw dootul ñëwati. il faut que quelque part ñu am comportement bo xamné dañ koy adopter foog ñu xataraayu. foog ñu xataraayu. Mm. te xam nga <laughs> la dernière fois dafa am lo xamante ni am na tamit beneen sujet boo xamante ni waxoon naa ko fi. te mm-hmm. dinaa si ñëwaat suñu ko temps bi permettre. parce que tok na fi may expliquer comme quoi que euh, bougan, sa démarche euh, dama ko japp ci ay wax yoo xamante ni yëkkati ko. Mm-hmm. ma japp ne wax jooju so ci sukkandiko mën nga jàpp ne kat ki. Mm-hmm budul agent français tamit mu ngi dox ci France Afrique. oui. <laughs> ñu bari nak xeyna comprendre ñu won wax jooju. Mhm. comme comprendre comme comprendre ñu won également bu may wax ne tey jii nii dañoo dem jamono ji toll fo xamanteni ni même les guerres bactériologiques il ne mhm. faut pas l'écarter mhm. ma doon souhaiter sax à ce que Sénégal def ci ay priorité la création d'un institut de recherche des euh, maladies épidémiologiques loolu bama koy wax bobu la variole du singe ba wax Congo feeñagul mais dina si ñëw ci kanam pour rester ci <laughs> kaaw bugan mm-hmm. parce que man sen émission bi passé dama ci dégg lo xamanteni wax dëgg yàlla mm-hmm. ça m'a intrigué ñi may déglu nak ma ngi leen di jégalu bu baax baax xam naa ne <laughs> wax ji ma di ngi leen di déglu loo daal <laughs> xam naa ne xëy du neex a dégg. mais rek ñu ñu ñu ñu permettre ma ko parce que bëgguñu quand même di wax ci ngelaw li noonu dañoo bëgg lépp lu ñuy wax rek ñu illustrer ko. Mm-hmm. wala tamit. jëf mbokk si internet yi ci 2S TV dal leen ak jàmm ci xibaar yi li ci jot a fës nag dañ koy doxee nag li nga xamante ne moom moo di si ministre. de la des transports nag eh, moom mii di El Malick eh, Ndiaye mi nga xamante ne si ne nag eh, liggéey bu rafet bi nga xam si ne nag amal na ko ci gouvernement bi surtout nag li nga xam moo di ci màggaluk Touba ginnaaw nag moom mii di El Malick Ndiaye rek amal nag li nga xam ne liggéey bu rafet boo xam Sénégalais yi ñu ci bari daal ñoo ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax ginnaaw nag ba mu jëlee rek ay bus Dakar Dem Dikk yi. rek euh, def la ko ci màggal gi ba xam si daal nit ñi doon nañ dem bu baax a baax a baax amuñu benn problème mu nekk nag euh, loo xamante ne si ne nag euh, rafet na trop nag te El Malick Ndiaye ministre bi yore wàllum transport yi rek eh, daatu koy def mu nekk nag loo xam si nag rafet na trop sénégalais ñoo ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax moom mii di El Malick Ndiaye jëf jooju nga xamante ne si nag amal nag ko eh, ci màggalug Tuuba te mu yàgg ko def nag ci li nga xamante si nag moo di événement yëpp